ñu defar ko lu fi yaaxu ñu defar ko ah ñu defar ko lu fi yaaxu ñu defar ko defar ko What up guys, what up guys, what's up everybody, sama guy <laughs> before going faster, allow me to introduce myself again I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town <laughs> li ko may Pape Dieye Ibrahima Ndaw Moustapha Mané Dagoud from Belgium di ko may Abaka Diallo from Russia his elder Ismaila Diallo di ko may uh, Amadou Dame Diagne ci mu seet ko mu Mané Modou Fall Nante Kaolack Gin Thiès aka l'international di ko may gars yi sama gars yi tey je vais faire li mooy zapping zapping jolof quoi tu vois damay jël ay vidéo yoo xam ni un peu partout e je ñu jéem a wax ci loolu quoi tu vois léegi fi may njëkkee mooy maanaam tey jii gars yi dañoo dañoo xewal benn phénomène Sénégal quoi phénomène bi mooy lan tey jii ay góor yoo xamante ji vraiment mun too xam góor lañ wala jigéen lañ ko tellement ay xonxol tuñ tu vois xool ay tuñ ñi ñëw fii sangoo ay saabu xeesal changé seen teint ñi sol ay pin ñi sol ay rose ñi sol ay kii maanaam daal góor moo rafet Sénégal léegi quoi tu vois léegi pour ne góor dafa rafet Sénégal léegi tu vois léegi sama réalisateur bi lës jox ma ñi xaw ma ndax ay Baye Fall lañ wala ay Yaay Fall lañ xaw ma quoi ñu seetaan leen ñu xool leen quoi ñii ndax Yaay Fall lañ wala Baye Fall lañ après ngeen jox Cheikh Mbacke réew mi yëngu na. lu ko yëngal nee la tubaab fakkaat la macha allah waali sekk ca topp la dara topp la. jàngu métier bu moqee sonal borom. way nga jàng nag. affaire bi moq sonal la ñoom Chris Brown ñëpp di la wër tubaab fakkaat la macha ba nga ne cëpp Amérique. eh képp ku bañoon bëggoon nga ñëw waaye Chris Brown ba mu ñëwee ña bañoon ña bëggoon nañoo retourné ña waaye mënatul ne. baay baay kenn doo ci digg réew mi tàllale loxo rek leneen baay baay jàngu métier moo ko sonal borom ca topp la topp la ñàngu moo ko ak ñaanu waajur lii moo la sonal kenn day ci doo ñoom te duñ yow eh ñi bañoon ñëpp tàllal leen box wala faajut ut fa ay garab te sangoo ko kaa bi lii la <laughs> léegi bu ñu bu ñu seetaanee ñii ba pare xam ngeen ne ñii góorewul dañuy yàq de lu bàyyi fàll ñii bu ñu balaa saa ñu war a jàpp dóor leen ay cours ba pare bu gars yi toggee pare ñu raxas ndab yi quoi parce que ñii ay raxas ndab la war a def ak yooyu tu vois donc na góoree quoi te loolu noonu jigéen jigéen lu bii nii am na lu muy indi société pour loolu ñu xam ndax ay jigéen jigéen lu muy indi ay affaire góor jigéen yi baaxul société waaw ñu déglu suñu suñu suñu maam ju baax ji suñu Mansour si yàlla nañu yàlla si si sas ci barkeem te xare mu wax ci si affaire góor yi góor ñi jigéen jege jege jigéen rek wax ma jigéen jigéen sëriñ si dañuy jox jigéen ñi loxo di leen bësloo nee na ta charia nangu ko nee boo gisee adduna bi yàqu ak yii fi nekk nee giñ na ci yàlla ni nee na di xas gi ñu xas gor yi di jox jigéen ñi loxo ak yu ñaaw yi nee na billahi ladi laa ilaha illa huwa nee na fekk dañul adduna dana tukki nee na ngeen tàllal nag te yeeweeku waa léegi bu ñu dégloo bu ñu dégloo suñu sunu sunu maam bu baax bobu suñu Mansour tu wa mais dañoo bañ ba dee ndeysaan diine rek xamuñ ci xaar tu wa léegi ñu déglu sama oustaz sama oustaz mom nee goor góor daa ref la Sénégal waa oustaz dama lay laaj léegi goor nan la wara mel léegi ñu déglu oustaz bi laaj ci goor nu mu war a mel ahbaab way way nak goor goor leen nak roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak xolal luñ ko taggee kasul lihya waxu ñu sikkim bi gudd na de mais dafa yaatu sot ko dëggu ci bir sëq génn ci biti su ko defaree nga xam ne góor dëgg ngi nii waaw noonu la góor waaye góor yi tey koo ci séen sa yaram day daw sa yaram day daw góor goo xam ne bu la sa jabar tegee sa loxo la raay mu mel ni kanamu jigéen. waaw léegi déglu nañu ustaas bi euh, moom wax nañu ni góor war a mel quoi tu ni góor war a mel nee na góor euh, nii la war a mel tu donc dafa war a góore quoi mais léegi daal góor rafet na Sénégal léegi loolu noonu loolu noonu la la laa naan saraax dem euh, euh, dem Touba ba ma demee Touba nag wane ma màggal gi quoi damay dem wane foofu euh, li Marichou du jé jéggalu def na vidéo wane day jéggalu mais jéggalu bi li ma ci neex mooy moom jël na prix Nobel de prix Nobel kii yi quoi acteur yi parce que vraiment sol nañ njaxasam seddal bar waaw maa ngi jéggalu boo xoolee li ma def juum rek la après li muy wax gëmmu ci daara gëmmu ci daara ñoom dañuy def seen i toj ba pare après seen xel mu sell soog a ñëw tu vois ngay dem ba yëg si soror bi di snap di jaay diwut buzz far baat buzz fekkal ci wala ñu xool jégalu bi en tout cas c'est une très bonne actrice en Marichou ndakate moom mën na interpréter so man jaxas bi mooy rek ak tourment rek baat bu sedd bi nag ne dafay di quoi lu jox kok, ko jox ko benn vidéo bu ma defoon ci Touba am ñenn ñu mu am na ñenn ñu koy méttilu tamit ñu metti mais maa ngi tuub nag di jégalu bu baax a baax xam ne ñun ay ndaw rek lañu amaana am Pastef ak xër rek moo ñu yóbbu woon ci loolu waaye nit bu dul juum te it amul amaana damaa juum maa ngi jégalu nag di tuub di jégalu bu baax a baax a baax xam ne tey bu doon bu démb doon tey du ma ko mës a def ndax su ma xamoon dina am ñenn ñu mu metti te am ñu mën a karlu du ma ko mës a def sama àddina maa ngi tuub nag waaw bu mu seetaanee Marichou ba pare waaw gis nga gis de loolu la fi joxe waaw Marichou moom elle est bien dans son rôle quoi vraiment joxe na loolu quoi tu moom elle est bien quoi si dans son rôle gis lu muy def nii dañuy duppe sénégalais ñoom dañuy wax seen toj toj mooy comme ay sumbulu li defoon rek dañuy def seen toj toj après ñu jéggalu euh, ñu dal ñu waaye que naa ne baal ah, ma neen daa ñu déglu audio Sonko bi parce que audio Sonko bi euh, maanaam tey jii audio bi dafa laave Sonko mais tamit Cheikh Sylla boobu xam nga kii mooy promo Sonko bi waaw xam nga rek mooy nit dina la jege mais fekk sori na la quoi tu vois léegi ñu déglu audio bi. mën nañu xam enregistrement bi. mais sëñ ngeen garaawee. waaye sax man c'est un qui va, qui qui, a, qui va, qui a beaucoup insisté de mettre ton patron au bar. Et c'était avant que je m'engage en politique, c'était un plus. Mais, c'est normal, quoi. Comment les gars, ils vont nous à ce niveau-là. Mais, comme tu es le témoin, tu vas, tu vas faire le témoignage. Donc, moi, oui. waaw léegi déglu nañu tu vois audio bi Cheikh Bobu moko ko kii moom gars gars yi Sonko Sonko xamna ñu mu nekkal xamna ni manam nit nit dina la jégué lolu fekk sori na la quoi lolu sax sala salaal ma ci sori quoi Sidi Diop lu mu ci loolu euh, nit nit ku lay jégué itam lolu nit ki daf lay jégué lool fekk sax den ko yoni boy yalla ma ngi lay ñaan di la ñaan di la ñaan nga musal ma ci pexem noonu xarit yu bon. waaw Sidi Diop loolu la ci wax Sidi job ne nit dina jégué fekk sori na la. moo Sonko ñoo bokk promo mais Sonko xam na ne waa ji gëmul dara xaalis la gëm moo tax mu def audio bi rek vocal fu mu jëm ah, rek mooy bu ñu bu ñu dee bu jëm quoi tu vois léegi ma waxaat ndax euh, nguur gi ñu seen mission wala dañoo fayu seen mission nguur gi nii ñu def nii ñu ngi ci mission seen mission la ñu ne réussir nañ ko wala réussir ko ah léegi kaa ñu déglu Pape Djibril Fall mu nekk TFM am na lu mu wax ci nguur gi am na lu mu wax ci nguur gi kenn ku ci nekk ci yéen ñaata nit la xam ñaata waxambaane la xam yoo xamante ni amuñu lu ñu yóbbu seen kër bu ngoon jotee ñaata waxambaane nga xam yoo xamante ni am nañu métier waaye métier ba du leen jural dara lu ñu lekk rek xanaa bu ñu wàccee lu ñu jënde fondé tëdd l'état a failli donc supprimer poste premier ministre maintenir poste premier ministre waaw lu muy soppi ci sundu ñun entre nous quoi entre nous na am juróom fukki premier ministre na bañ a am premier ministre quoi c'est un retournement de situation boo xamante pour man duñu beneen bi mooy assemblée nationale li ma wax léegi dafa jëm ci assemblée nationale keroog ci émission bi ma mujjee def dama leen wax ne leen sëñ Fallou Mbacké daf daan wax ne kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp sa njaboot am yitte seen xel jël la sëñ Fallou nee na nit wa na képp kuy kilifa war ngaa rus loolu saa bu nit ñi amee yitte rek seen xel jël la mais yéen tey ban soxla ngeen am seen xel dem ci assemblée nationale. ndax kenn ci yéen jàpp na ne assemblée nationale bu Sénégal dina ko jooyal ay ay ay dina ko fompal ay ronkañam aussi bien Ousmane Sonko qui aspire à diriger le Sénégal que Mansour bi de New Japan, dañu ne liñ ko dafa solo. Euh, parce que ne budget ba toll moo de moo dafa am solo euh, <clears throat> buy bi mu day de presse ne dafa am lu muy dévoiler foogoon projet bu dévoiler wala gis-gis bu rëy lay dévoilé wala liñ ko cërale ci PAP 2 réajusté et accéléré et puis bi ma gisee conférence de presse bi ni mu demee xawma point de presse je me suis dit xam naa ne nawlawul président trop parce que fii réew mi toll suy wootee conférence de presse ba ci interview bi mu njëkk a def ba ba wax loolu très sincèrement je me suis posé la question ma où est l'idée où est l'apport où est l'ambition dans cette posture-là ak ou mi toll ak je intervenir ci ben moment très sincèrement nous ñoo à fond avec tout ce que cela comporte ak yitte bi nga xamante ni yëpp Sénégal yëpp de boor bu ñu mën di nekk implication bi ñu ci am opportunité la woon aussi pour ñu amorcer relance de l'économie pour surtout pour les petites et moyennes entreprises yi nga xam dañuy intervenir à ce niveau là bi le président de la République le 29 septembre a ngi jam ñaajo di xool nan pour relancer dans cet entre deux là mais li xaju fi te dafa trop donc et ça pose un euh, problème par rapport à l'état d'esprit de ce qui nous dirige. ak y qui am ci mbir pas essentiel et ce qui est li nga xamante ni moom la buuba wax euh, ne koy pour ay positionné Mansour Faye pour moom positionner par rapport à 2024 pour moi, le président de la République si tel est le cas il est en train de faire fausse route parce que yenam bi foule. le deuxième mandat de Faye. Euh, metti, ba nga xamanteni tay tey yitte bi nga xamanteni ni lañ wara am moy nan lañuy relancer son économie parce que sénégalais les gens sont fatigués les gens sont euh, amna na xamanteni situation yu metti lañu am waron na tal lenen ludul nek fi nan dañuy euh, et puis bo gisee débat bi tournure bi mu jël après très sincèrement je me dis euh, il faut que gars yi bu ñuy sànni carte aussi ñu xool bu baax ñi ñuy sànni seen carte mm. et que président buy nommé aussi mu xool bu baax ñi muy nommé parce que mm. Mansour Faye franchement mm. euh, su naw la woon président de la République buy def sorti ci jamono bi day def sorti pour leneen mais pas pour naan day génne ay audio audio quand même yitte war na gën a kawe lool waaw da pap pap Pape Djibril Fall de waaw waaw waaw loolu moom moom résumé lépp si nguur xam na ne nguur gi ils ont ils ont failli quoi tu ils ont failli booy boobu gëree la quoi vraiment war a jógee TFM quoi dem Walfadjri quoi waaw naroon na sa privilège dem Walfadjri parce que moom bañkat la quoi donc da dem gis na booy bi il est pétri de bopp bi day mbalax quoi vraiment wax euh, ni Aïssatou Diop Fall ni ah, kakatar mel ni jémbe kii bindu gaynde ne fii école nga défendre peuple bi ngay wax fi ñàkk xorom quoi tu vois donc sama gars léegi li ma koy tëjee mooy benn gayan gaayan bi ndekete amul problème quoi moom lenn rek lay laaj être dedans mais bu nekkul dedans day day day day ruube kooku mooy kan Diouf Faaya ñu xool Diouf Maroc il est heureux mu ngay tël ngay kii fu ne dingatul Augustin Augustin Senghor am na jàmm Augustin Senghor di nga ko def yàgg non Diouf moom fu ne bu dee àjjana la jëm ñu xool Diouf parce que gars yi noonu laa tàggoo gis ngeen jufi de jufi faaye ñoom <laughs> jufi amul wallahi djufi amul quoi tu vois donc laa djufa ngok waaw yag na kaas mais nak kan, eh, eh, joueur lo quoi gars yi ñu ko war place am ken gënu ko yey ci affaire administration ñu ko yobbu fofu bu ko defee mu nekk si jour naa leen li ma tok ta ta ta bo da ko lo rek lay laaj mom na ngeen ko tek rek mu wax ay jalo rek il lu demande pas bu len neex bu lu ko fay donc sama gars yi ma la jox TV la won zapping Jolof waaw naa ñëwaat ci benen zapping do len ko sama karam gu ñaaw gi genn defar ko ñu defar ko le lu fi Nous ñu ah ñu